Hmm. mais dégg nañ sa kàddu nga ne nguuru Macky mooy nguur bi gën a sedd ci nguur yi. Hmm. mais dañoo seetlu ne dafa bëri ay ay ko kaso comme ni ko sénégalais yi di waxee. Hmm. ku ku nekk rek dañ naan la da koy dégg déggaatoo ko ñu la mu ngi ci prison bi. kaawu Pape Alé Niang di journaliste d'investigation ñu bàyyi ko fi. matul une semaine ñu jël ñu jël siwaat ko. loolu bi journaliste yi laay waxal. sénégalais yi they have enough for Pape Alé du journaliste politicien la. Papa Alé Niang waaw journaliste ba ñu jógee di kaasal Pape Alé daan nañu dégg lépp lu Pape di wax mhm. lépp doon nañ ko dégg mais comme seen mbokk la am ngeen droit ngeen taxawul ko mais dëgg ga ca biir ñëpp xam nañ ko mhm. say nawle jóg bàyyi seeni aajo doxal la waxal la mais bu ma génnee dinaa xool lu ma génn wax jéggalu nit ñi wax lu baax toogaat xool sama yoon mm-hmm. ku mel ni Tunkara nit dinga nga génn kaso ci wax lu ñaaw di ko woo mm-hmm. ku mel ni Mollah Morgan di nga génn ci kaso di ko woo di mm-hmm. wax lu ñaaw di tuumaal lu war a yëngal réew mi ci fan ci sunuy homme de loi du peuple bi nii de loi seen directeur jël na doomam yi yóbbu Amérique yéen seeni dooma fi ne ay om de loi loolu la Pape Alé te yow yaa ngi am om homme de yi problème nga génn di jaay man dama sañ mais day dellu justice day dellu day dellu amatu leen dara yéen journaliste yi loo leen di wax su fekkee dëgg rek moo moom la yàlla bëgg ah kaasal nañ ko wax nañ bàyyi nañ ko génn na dem ci saagakat yi ñaar yi gën a mag mu def ak ñoom wax kaaw teef tooñ ku ko gën a capable yadd yadd rek <coughs> sénégalais la yadd boo ko tooñee da di jëflante mm-hmm. ay doomam a ngi fii ci dëkk bi mm-hmm. kon Pape Alé kàcc na dañ ko woowaat dafa nekkoon profession mm-hmm. génn goo ci amagul ñaari fan loolu luwaa la amatul luñ ciy wax na dem justice attewaat ko mais daf leen a war mandat dépôt la nekk mais daf leen a war gën a compliqué Aïssatou Diop Fall mhm. wax na ko mhm. nañ leen waxante dëgg Pape Alé polo euh, du journalist rek dafa far day wax wax yu ma tiital man Pape Alé léeg mhm. day wax man est-ce que état ñi ngi déglu waxoon na fi ma def ci vidéo mu ne police dafa jël jaaykatu koko yi jaaykatu marse yi xale yi pëlëfuute yi bandi yi pour ñu attaquer réew mi loolu megul sens police di ñu aar di jël ñeneen di ñu song ñu naat mhm. yooyu wax na ko fi ma def vidéo ni police su fekkee yéen a may déglu lii Pape Alé di wax da yënga réew mhm. yéen mënu leen a jël ñu deful formation defuñu dara ngeen xëy rek solo leen te ni ñuy tiire loolu fu mu amee mi ngi ñaax yeneen xale yi pour ñu songu leen. Mhm. Pape Alé yàgg na wax deli Sonko yàgg na wax deli Sonko yàkkamtiwu justice yàkkamtiwu ko da ko bàyyi muy def muy def Amérique noonu lañ lay def dañ lay bàyyi cinq ans ngay def rek bu ñu indee tegal la lépp nga jommi moom liñ ko laaj jommal na ko. Mhm. comme que dafa génn ñu jàppaat ko est-ce que nekkul dañuy bañ mu wax puisque dencul tamit ay secret état comme que moom nee na journaliste d'investigation. est xam nga maa bu doon France mbaa muy Amérique Pape Alé na secret militaire ku ko wax ñu faat la secret police ku ko wax ñu faat la loolu moog bu état ñoo yem ñett yooyu. boo ko génnee boo amul sens sa bakkan da Amérique heure bi dañuy wër Pape Alé après day jeex euh, politique bi mhm. waruñ ci boole ñoo ñu nga xam ne dañuy aar dañuy jàmbaar policiers ak militaires yi mhm. ñun heure bu ñuy nelaw ñoom ñu ngi ci mbedd mi mhm. soo demee Casamance ñu ngi ci àll bi foore bi dañuy bu ñu bëggee nelaw dañuy gas bu mu xóot dugg ci taxaw seen moroom yi defal leen mbaar ñu def nii di nelaw buy taw di taw seen kaw. Mhm. am na yooyu yaa yenn genre secret yi ñun waruñu ko génnee. Oh, am na secret yu ñu warul génnee. c'est mhm. vrai parce que boo defee formation journalisme sax dinañ la ko wax. Mhm. mais koo xam ne journaliste d'investigation la bu bu defee ay recherche am na yoo xam ne nag il a le droit de parler. mais moom investiguer de boobu daf ko def pour Sonko. defu ko pour réew mi Sonko moo tax mu def boobu moo tax mu def loolu Pape bañ ma ne dafa feebar kon xam nga léegi li may wax Sénégal lañ koy déglu di ko gis. Mhm. Pape dañ ne dafa def grève de faim ba feebar. Mhm. dafa ñëw rek dugg vidéo sàngara si muy naan moo manqué ci yaram bi. day naan sàngara is a alcoholic. su toogee benn fan naanul of course da koy jàpp whisky sec lay naan Pape ñu war ko tëj ay fan of course day feebar parce que yaram bi da koy laaj mu génn màndiwaat sénégalais yi nañu wake up mm-hmm. nañu yeewu dangeen a xeex yéen. Mm-hmm. pour Pape Alé génn ah Pape Alé na leen jox respect. Mm-hmm. bu génnee na toog a ah, sama mbokk yi kat jàppale nañ ma xaaral ma back up une semaine. xool lan laa war a wax. génn ci lépp police militaire. du sama yëf. naa investigué da ñi ma war a inve comme dugg naa ci kaso. waaye faalewu leen. yéen ñii ba ngeen ko gisee ci Mola Morgan ak Tunkara seen xel war na wax ni waa kii lan lay def nii te mi ngi ci provision actuellement tamit beneen problème am na parce que kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi kenn du la wax seen diggante yéen ñaar mu nekk ci ay situation actuelle parce que génn na wax ni fi mu dëkk sax dañ ko fi waaj a génnee ba gis nga ñu ngi ko doon defaral benn cagnotte wax boobu maa fi mhm. euh, man député laa mhm. président Macky Sall daf ma takkal ndomba tànk woo ma ni ma dama bëgg nga waxal Sénégal te am na yoo xam ne boo ci nekkee yu bari doo ci dugg man dama bëgg nga may laaj yi président Macky Sall di inaugurer pour doomu sénégalais yi pas nit ki personne li mu bëgg. mais mais en tant que député. tamit hmm. nit bu nekkee ci ay situation parce que moom tamit gis nañ fi ni yéen ñaar am na am na foo leen jaar. moo tax nit ñi ba mu nekk situation boobu seen xel dina dem ci yow. yàlla baax na yal na ko yàlla defal jàmm. Mm. yal na ko yàlla sang malaanal suturu ba du génn di xaawi boppam ni euh, di ko ñaanal bépp activiste. Mm-hmm. man damay liggéey. Mm-hmm. man damay jaay su ma delloo nii Amérique. Mm-hmm. man damay dem dóor waar man bëgguma ñaan man sama yaay. dafa ma ñaanal ni ma doo mësa torox loolu nag warul nekk rek ci gémmiñam dama ko war a jëfee mhm. ma bañ a torox mhm. liggéey rek laay def mhm. euh, sunu papa coon sekk dafa woy nii am sa soxla làmb sa poos dara dàq ko maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko génnee ci situation bi ma ne bi mu nekk noonu waaye man fu mu nekk nii duma ma seetaan sax réseaux sociaux bi. Mhm. mais moom gis nañ yi mu daan génn di ko wax opposition bi te gis nañ opposition bi cagnotte bi ci ñoom la tàmbalee ñu ngi ko doon defaral benn cagnotte. yàlla xam na ni seetaanuma ko yàlla xam na ni xooluma ko. mais da xeexal jigéen ñi am tant que jigéen fan yëpp xam nga ci lu ma nekk fan yii. Mhm. xeexal xale yu ndaw yi amul kado. taalibe yi xale yëpp dañuy fooye kado mhm. da ngay gis ñu romb bu kenn di dawal dara wala yor dara ñu taxaw di xool mhm. ñooñu lay dem ci daara yi jox leen ko mhm. gis nga yi ma teg ni SOS am na yu dem ca kaw ga kër maama Lamine fu mu nekk nii moom laa nekk xooluma dara dara laa xoolut ñëpp laa ñaanal jàmm nag képp koo xam ne yaa ngi ci social media bi di xeexal président Macky Sall mooy xeexal Sénégal maa ngi lay ñaanal yàlla nga am jàmm am mm-hmm. tawféex yàlla mm-hmm. sàng la malaanal sutura ba ba sa sutura du xaawee ko mm-hmm. ñun euh, man laay wax li ma bëgg a def ci Sénégal yàlla rek laa koy séedee man dama bëgg a marqué sama blueprint waxu John di ba laay waxaat sénégalais rek bugguma Sénégal laaj ma lan lan bugguma laaj Sénégal lu ma defal man dama bëgg sénégalais yi laaj ma yow lan nga defal Sénégal ma wax ko ci yooyu laa ne ñoom ñëpp nag muy bépp activiste di ci nuyu waale Xaadim Gueye Émile Ndiaye Ba Jaxate ak euh, ñi ma limul ñëpp lii du xeexu ennemi naa bañ kura am ñu ne kura ci ay activiste li ma gën a naqari ci àddina mooy kura ma ki mi dem ensemble dañ mhm. wax ak yàlla maa nga fa de nañ wax sunu borom maa nga fa de mhm. waaw maa ngay rëkk de te yow xam nga ni sax rëkk naa te sénégalais yëpp xam nañu rëkk naa mhm. ndax nag tudduñu fa waxi Macky Sall sénégalais yi waxu Sénégal budget Sénégal lañ doon wax mhm. ku yéeg bañ a votel budget Sénégal ma yekk la musiba ne la bañkatu Sénégal nga doo dara mais saaga ma fa ndey ki ma saaga ndey nag fayu naa laa ilaaha illallaah bu ma toogoon ci wetu président Macky Sall am ku ma saaga ndey ma fayu yow ma ni ma fonkee sama yaay ku ma saaga ma fayu yaay dafa neex fekk ma ma taxaw nga ne ma yow doomaraam ngeen ku def noonu seen nday nga ma sumuñ bu ma sànni garaam ba bëggati ko dóor ñu téye ma nii rek la demee mais Sénégal xeex boobu ak histoire boobu moo tax Sénégal waaye songoo ma waroo waroo woon dem ensemble naa génn fii léegi nga saaga ma naa génn fii ci buntu kër gi léegi périg bi këf sànni fële boo xefee ma summi kii de sa short xeex ba naaw mooy sénégalais yow mm-hmm. abbas ndaw gii laa juddoo mm-hmm. guy mari sagna nga juddoo Casamance man yow may ma juddoo fii yow tukki mondo entier mm-hmm. sama yaay ji liggéeyal ma ma fonk ko loolu sénégalais bu ma saaga ma fayu ak fu mën a doon ensemble rek ngay wax déggoo la président Macky Sall fële fële di Amérique mais fin d'année bi lan ngeen préparé wala yow lan nga préparé. ah fin bi li ma préparé mooy jox xale yi cadeau ñi nga xamante ne ni seen yaay yi amuñu lu mu jëndee cadeau man maay dem muy SOS laay ñëw dem nii léegi. Mm-hmm. ak si euh, église bi nekk euh, foofu nu mu euh, jëppal mm-hmm. foofu laa jëm jox leen pour ñu séddale ñi nga xamante ne ni amuñu kado man ci lii laa ne. Mm-hmm. ci lii rek laa nekk nekkuma ci leneen. feet bi nag di ñaan yàlla sunu borom bi yàlla nañ ko fekkee déwén mhm. yàlla nañu ko fekkee tatal ko mhm. sunu mbokk chrétien yi di defal feet bi yonti yàlla eesa mhm. dañu jàpp ci sama xeexu xale yi conteneur bu ma fi dugal def na léegi six ans conteneur bu ma fi dugal ñoo ma ko jox pour ma jox ko xale yi ci mbedd mi kon ñooñu bu ñu ayee ñun dañ leen di war di delloo njukkal te nag mm-hmm. du Amérique rek de dañoo bokk ak ñoom dëkk bi mm-hmm. ñu yaru lool sooy dox ci mbedd mi mm-hmm. bu dul seen paap yi nii doo gis sax ñu takk croix senegal nga dul xàmmee jullit ak catholique te ñoo fi dëkk yal na fi yàlla yokk jàmm nañu ko defaree woon mag yu njëkk ya mu ñëw ba fii benn doomu aadama du ko yàq nañu feetoog jàmm ñoom chrétien yi te ñu nit dinañ leen dimbale ci seen feet yi ndax ñun bu ñu amee feet man am na sama xaritu chrétien yuy rey xar bu taba korité dañuy jënd ginaar togg ñoo bokk feet bi kan lañ koy defal yonti yàlla Eesa du moom lañu wax ñoo ngi ci biir bokk na ci juróomi yonent yi yàlla takkal ay garaat yonti yàlla Eesa bokk na ci. Mhm. du ma julli mukk te lu ma leen ñoom juróom ñooñu. Mhm. ba ma xamee ba léegi. Mhm. du julli te lu ma leen. ndax sama sëriñ bu baax baa ko wax. al euh, euh, Cheikh Tidiane si al mu ne bul julli ba fàtte ñooñu dee leen ñaanal. ndax day ñëwaat ci yow. kon fii Sénégal. Euh, bu feet ñëwee nii surtout tey vingt 24 décembre. sama mbokku chrétien yi. nan feeteeg jàmm nag mu neex. waaw te te yow député bu mag bi yaa ngi seen ginnaaw. fa seen ànd ak ñoom lan mooy say projet 2023. 2023 sama projet mooy jéem a dimbali jigéen ñi. Mhm. ak xale yi. Mhm. projet bi gën a mag a mag a mag a mag mooy jigéen ak xale. Mhm. réew mu muy toroxee réew moomu dañuy jooy rek buñ doon lekk fu ba suba dañuy jooy rek yàlla ma ko wax. xale yi nekk ci mbedd mi. amul sénégalais bu mettiwul. mais xamuñu nan lañ leen di def te amuñu baat. Mm-hmm. dinañ leen dóor guddi. 6 di du matin la ñuy génn ba 11 heures ci guddi. mënuñu mm-hmm. ci dara. Mm-hmm. xale yi ñun ñoo ci war a mën dara ñun ñoo leen war a dimbale. te loolu dama ci taxaw du daara. xeexuma daara xeexuma lislaam ci laa juddu. mais lii ci mbedd mi du lislaam mais boobu bu ñu gisee ngay kaasal ñun taalibe yi est-ce sëriñ yi du ñu wax da nga jóg. man sama yoon nekkul ci sëriñ bu may critiquer ci xale yi may waxal ci mbedd mi pour ñu jëleen leen ci man yàlla moo tax may def du Macky Sall. Mhm. xale du nekk ci mbedd. Mhm. ñii bu ñu màggee délinquant la ñuy doon ñoo ñuy torturer ñoo ñuy agressé. Mhm. xale bu ndaw sàcc na sama portable bay bëgg dem ak moom man ak Aïda te xam lan lañ leen doon defal. temps corona bi di leen jox ay gel. ak gant xale bi yoru loxoom ci sama saak jël ñaari téléphone yi imagineel kooku bu màggee ci réew mi te teeluñu ko jël te lu tax duñ leen jël dëkkuñu ci réew mi Guinée Bissau bi Mali sama dëkk ba waaye ñu war a bàyyi xale yooyu nekk ci mbedd mi màgg fi torturer ñu li ma bëgg def mooy jënd naa terrain bi ba pare dama leen ko bëgg a tabaxal yaay bu ci bëgg nga indi ñu yaral la ko bu màggee ba dem université mën na jëriñ réew mi bu fi juddoowul mën na jëriñ réew mi mm-hmm. euh, moo gën ñu bàyyi leen ci mbedd mi ñuy torturer suñuy sët mm-hmm. ay bandi cerveau ngay gis ni xale yi mm-hmm. bandi yu mag lañ man loolu mooy sama xeex ak jigéen ñi nga xamante ne ni dañ leen jàpp di leen dóor am na jigéen ñu nekk ci kaso bi yàgg fa lool ñu war leen a dimbali. ñaanal leen njekk ñu génn. Mhm. man loolu mooy sama sama plainte ci deux mille vingt trois bi incha allah ñëw sa relation ak sama tata Aïda mhm. Fatra parce que gis nañ ni mu mel ak yow et tout boo ñu mënee expliquer tout ci moom parce que. moom tamit icône la parce que mhm. bëri na ay xale ay ndaw yu nekk ci métier bi moom ma leen inspiré ba tax ñu ñeme cee dugg def na lu ne Sénégal Aïda Patra Show ñëpp ko xam nee naa ko yow boo dundee ba heure bi sa xol bu rafet la te du man rek maa ko wax mm-hmm. yàlla defal ko nag muy nit ku baax di mm-hmm. cimetière mm-hmm. ayda man na toog may wax lu ma neex xam naa ni du ma enregistré ayda man naa def lu ma neex ci kanamam xam naa ni du génn sooy wut xarit xarit yooyu ngay wut euh, behind li mu doon def sénégalais yëpp bégal na fi sénégalais yu bari li nga wax ku dugg tey jii ci animation mhm. ay Patra moo tax mhm. ah ngi koy pareel nag ci mois de mars bi le le le huit mars mhm. jour jigéen yi dama koy pareel defar sargal loolu moom yéen seen yëf la yéen journaliste waaw yéen seen yëf la yéen a ci war a jàpp le huit mars lañ ko bëgg a def ci kàttanu yàlla defal ko sargal boo xam ni te merito mm-hmm. na ko mm-hmm. ndax am na ay guddi yoo xam ni Sénégal ñëppay toog di ko xaar mu leen di bégal bégal boobu mu leen doon bégal nag mhm. dañu bëgg a woo Sénégal ñu ñëw mhm. ñu bégal Aïda Patra mhm. la mu ngi li muy def commerce dafa bari Khadija Patra doom ja moo ko remplacé moo nekk 2S mi yëngal moo ko remplacé mu ne ma bàyyi ma léegi comme xale yi jàng nañu ci man. Mhm. ba am ñu ma fan ma mhm. toog di leen seetaan daf may neex. sama doom a ngi ci bàyyil ma magal leen. Mhm. ku ma ci fekk bu ma la ma nee dolli xel dolli la xel nit ku baax la. ay Aïda Patra nit ku baax. boo amee sa looy wax bëgg mu denc jox ko kii. te man loolu laa bëgg di ànd doomu aadama. mais Sénégal des fois da liggéey ci benn béréb àddina bépp xam la. nga jékki-jékki ñu fàtt la. mën nga feebar mën nga mhm. nekk ci ay jafe-jafe mhm. pourtant mën nga dajaloo ne tey man bi la ñuy defal tey sargal mhm. nit ñi ñëw ngeen joxe seen invitation joxe seen soutien ñu dimbali ko mu dëgër noonu la ñuy dimbalantee mais nit liggéey liggéey bu day nii après toog ñu fàtte ko rafetul. xam naa ni guddi ay Patra Sénégal yëpp dañ ciy jàpp man xam naa ko jàpp lan ngay tàggatoo rek am internet Dakar Buzz TV donte doyul ci waxtaan bi. <laughs> xanaa di leen ñaanal jàmm rek ak feetub jàmm. Mhm. di ñaan yàlla sunu borom bi ñu fekkee ko déwén. amiin déwén fii 24 décembre nga ñëw toog fii. ñu defaat ko mois mhm. ñu ànd seeg sunu sago. Mhm. di wax président Macky Sall ak ajaratu Marème fay sama jéeg ba bon fête. yal na yàlla dolli senegal jàmm te di dolliwaat ndaw réew mi muy jeunesse bi jigéen ak góor ñu gëm seen bopp mm-hmm. bañ a topp kenn ci ay xeex mm-hmm. doon jàmbaar góoru Afrique ay jàmbaar lañu mm-hmm. boo jógee pour ni damay dimbali sa yaay go ahead yàlla day ñëw mais moo gën ci kenn ku ñëw dem def affaire lu ko neex ñëw mm. ni la kaay xeexal ma bàyyi ay doomam ci kër mm-hmm. yow sa yaay ñàkk xelaluma ko sama doomu réew mm-hmm. lii ñëw ci réew mi muy gaz beeg pétrole beeg yu baax yi mm-hmm. ah sunu sët yi dinañ ko dundee de dootuñu namm daray tubaab de dootuñu bëgg daray tubaab de duñu yegg ay France naan ah lii rafet dañ ko bëgg a gis fii ba pare man loolu laa yéene sénégalais yi di ñaanal ñëpp jàmm di wax yàlla nañu fekkee déwén ñu tal fekkee man ca dara ñaanal ko Sénégal yëpp wasalaam. Mm-hmm. Aminta Dakar Buzz TV lii lañ leen indiloon nee naa leen moom bu ñu toogee moom duñu doyal dañuy bëgg waxtaan bi continuer toute la journée mais temps bi moo ñu tënk ñu koy remercier bu baax nag ci disponibilité bi parce que saay suñ ko woowee rek duñu gàntal dañuy ñëw te dinañu ak accueillir dina waxtaan ak ñun may remercier Jibi mi nekkoon ci caméra bi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah ak beneen invité merci beaucoup la prochaine.